Premier ba club yu bëri bëgg nañu koo dalal muy Bamba Dieng bu ci mel ni Crystal Palace Everton Leeds United Leicester West Ham club yooyu yëpp bëgg nañu doomu Sénégal bi te journal yu mag nekk foofee ca Marseille dëggal nañu ne diggante Bamba ak waa Marseille neexatut te Bamba ci boppam nag kont Instagram lépp loo xamante ni dafa laale ci Marseille da ko dindi turu Marseille nekkatul ca compte boobee photo Marseille wala vidéo Marseille nekkatul ca compte Instagram am kon jamono jii seen diggante neexul quatre-vingt-dix minutes football nee na Premier League ba nag club yi yëpp ñoo ngi koy bàyyi xel ngir yóbbu ko foofee mu doxal muy Bamba ñaanal leen ko nag mu am club balaa yàgg ndax footballub Sénégal soxla na ko lool dinaa samp laaj ci commentaire yi nag mu di lan club yi nga xam ne bëgg nañu Bamba ca Premier League ba ban club moo gën ci doomu Sénégal bi ñu jugee ci Bamba jël beneen doomu Sénégal di Edouard Mendy démb rek ñoo ngi leen doon wax ne dafa am gaañu gaañu ca baaraam ba maanaam dafa damm ca baaraam ba ma nga woon ca France dëkk bu ñuy wax Reims loolee dëgg la te opéré nañu ko ba noppi këlëbam di Chelsea ñoo ko siiwal tey jii ne Edouard Mendy opéré na ba noppi kon match yii di ñëw nag du mën a góolu foofee ca Chelsea day dallu ba wér taxawaat ci kan yi góolu ñaanal leen ko muy Edouard Mendy moom nag blessure boobee ci entraînement la ko jëlee. ñu jugee ci Edouard Mendy dem ca équipe nationale bu France ki leen di tàggat di Didier Deschamps nag yokku nañu contrat ba tey jii la ñu ko siiwal yokku nañu ko ba atum deux mille vingt six kon mooy wëy di tàggat équipe nationale bu France muy Didier Deschamps kon Zidane mi doon gént tàggat équipe nationale bu France géntam googe yàqu na ndax Didier Deschamps yokk nañu contrat ba ba atum deux mille vingt six loolee officiel na. ñu jugee ci Didier Deschamps jël doomu Espagne bii di Roberto Martinez bu ñu sukkandikoo ci Oxogo waa Portugal ñoo ngi koy bàyyi xel. Portugal bi ñu jugee ci coupe du monde bi la ñu dàq Fernando Santos mi leen doon tàggat jamono jii li ñu bëgg moo di ku tàggat équipe nationale ba Mourinho bëggoon nañu ko waaye mbir moomee mujjul yemb ki ñuy bàyyi xel nag moo di Roberto Martinez mi nga xam ne moo doon tàggat Belgique te waa Belgique kat dañoo téqalikoo ak moom oxoogoo nee na équipe nationale bu Portugal ñoo ngi koy bàyyi xel. ñu jugee ci Roberto Martinez ak équipe national bu Portugal dem ca coupe du roi ba tey jii nag tirage nañu huitième de finale yi bu dee waa Real de Madrid ñoom Villarreal la ñu war a jàkkaar lool kon tey jii bu ñu jàkkaarloo ba noppi balaa yàgg dinañu jàkkaarloowaat mu soxal coupe du roi Real de Madrid nag mooy fekki Villarreal bu dee waa Barcelone ñoom këtaa la ñu am këtaa nag ma nga ca troisième division bu Espagne kon Real ak Barça xam nañu ki ñuy jàkkaar lool ci huitième de finale coupe du roi bi ñu jugee ci coupe du roi boobee waaye waa barcelone duñu leen bàyyee gum barcelone nag door na waxtaan ak seen gone gii di Lamine Yamal Lamine Yamal mii nag football am na lool yaakaar ci moom ku ko xamul na nga dugg ci youtube bi nga tappee turam topp ko gone gu mën la muy def la marka nee na waa Barcelone door nañu waxtaan ngir gone gi yokk kontraam toog foofee doxal gone gu football am ci moom yaakaar la muy lamin Yamal xibaar boobu Marca yéenekaay moo ko xamle ñu jugee ci waa Barcelone ak Lamine Yamal dem ca waa FC Séville ñoom nag am nañu défenseur bu bees tàq muy doomu France bii di Luc Badé Luc Badé mii nag ren moo ko moom da koo able ci Séville gone gi nag ci saison bii ñu génn maanaam juin bii ñu weesu ca lañ ko able woon ca Nottingham Forest waaye gone gi nag amu fa temps de jeu moo tax ren nanguwaat ko abal ko FC Séville mu nekk défenseur bu mën la muy def loole officiel na. ñu jugee ci waa FC Séville dem ca waa Al Nassr ñoom nag toogaguñu ginnaaw bi ñu jëndee Cristiano Ronaldo li ñu bëgg moo di wutal ko ay excentré yu mën la ñuy def a ba noppi mën a xelli bal yi ndax Cristiano Ronaldo mën di dugal ay bit jamono ji nag bu ñu sukkandikoo ci mail sport ñoo ngi bàyyi xel doomu Allemagne bii di Marco Reus mi nga xam ne ma ngay football ca Borussia Dortmund moom ak Borussia Dortmund saison bi ñu nekk su jeexee su fekkee jubawuñu day nekk agent libre waaye waa Al Nassr li ñu bëgg moo di su yokkul contrat ñu jëlee ko ca Allemagne yóbbu ko ca Arabie Saoudite mu doxal xibaar boobu mail sport moo ko xamle. ñu jugee ci Marco Reus ak waa Al Nassr jël doomu Argentine bii di Enzo di football ca Benfica. kii wax ci moom nag moo di Schmidt mi nga xam ne moo koy tàggat ca club boobee ndax gaañ ñi dañu koo laaj ne ko gone gi dee